waaye nag baax na ne bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim ndekki sama yaay ñëw na gisuma ko woon man koy nuyu eh, yaa leen eh, di ko ziar bu baax a baax a baax moom de xanaa fi ñu toll woon rek muy ci ñaaxee gi nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñaax na ko jullit yi pour ñu sëy ndax nee na bu yomal xiyaamate bu yonent yëpp dañee dafa bëgg puugare wooyu ndax xaw ma ndax bëgg nañu nekk puugareem yonent wala bëgguñ ko nekk képp koo xam ne bëgg nga puugareem yonent sallallahu alayhi wa sallam boo yeboo jublu ci sëy bu dee góor la bu dee jigéen la am naa ñun am nañu yenn politique yi ñuy def di fexe ba ñi nga xam ne dañoo bëgg jabar ñu jéem a xool ñi nga xam ne am jëkkër ñu boole leen foog am nañu fi amul jëkkër am te jënd yooyu tamit nag naa boole ko fekke des waaye waaye bàyyi ci xel baax na waaye itam comme yu mel nii kër bu mel nii yàlla dimbali ñu mu nekk ci biir communauté bi ñi fi nekk yëpp daanaka jógee benn bërëb ba ñëwñu dajee si mën naa am ñu indil ñu keneen koo xam ne du mel nañ bëgg wala du ñu gënal te duñ ci mën dara moo tax yooyu xam naa ne ku jóg seet imaam yi baax na ci lool ndax man ñi comme ni nga ko waxee daan nañ ko def fexe ba ñuy war a ànd ñu dimbal ba ñu ànd te bokk na ci li tax sharia di xemem loo sëy mooy dafa bëgg nit ñi sangewu dafa faam loo xam ne lu naturel la nit ki mu yëg ko moo xam góor la moo xam jigéen la su tolloo ci yenn at yi yonentu nag sallallahu alayhi ne koo képp koo xam ne yàlla may na la mën-mën bi nee na gaawantu sëy ndax moo laa moo laa moo laa protégé mais su fekkee amaguloo mën-mën bi na nga ci koor kàddu yu gàtt la waaye eh, solution bi ci nekk eh, newul ci leneen ndax ki yàlla di yootal moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam yu waxoon sànq ne dafa am lu ay préalable yoo xam ne ñoo war jiitu nekk bi mooy li ñuy wax euh, sëriñ Moustapha a na naa wax la labat waaye mooy mooy utiliser labat li ñuy tuddee labat labat dafa sharia daf koy yoonal ngir euh, diggante bi war am ña ko war a seq mel nañ war a mel ñu xam nañ mel xam nañ war a àndee xam ka ngay nekkal ban façon la ngir nekk ba am mucc ndax sëy contrat à durée indité indéterminée la ah du contrat xam ne dafa war sax ñaari fan wala ñetti fan wala nangam ni ko sëñ Moustapha waxee sonk maanaam ku nekk ci ñun sa mbokk mi nga bokk ndey ak baay wala sa jarbaat wala sa doom wala sa yaay wala sa bàjjen wala sa papa ñoo la gën a àdduna ak ci biir xam nañ li nga bëgg yow xam nga ñoom liñ bëgg te terewul léeg-léeg ngeen am ay jafe-jafe kon nag ñii nga xam ne tey bu ñu fekkoon ci mbedd ñu lay doye dos na leen ñu ñàkk seen bakkan gannaaw ñoom nga mënta am ak problème naka nag ki nga xam ne dund nga ba am ñaar fukki at wala fanweeri at wala lu ko ëpp wala lu ko manqué ngeen soog a daje bokk leen ngeen jóge bokk leen lu ngeen yaroo bokk leen lu ngeen bëgg bokk leen lu ngeen miin ngeen war a dajee not for two days not for two years not for twenty years but forever loolu ku la wax ne daje boobu dana neex kese kese déggut ko sama papa daan na wax ne ñaar ñuy sëy fu ñu waxtaanee kenn ñee moromam am na ko wax dëgg mën nañu waxtaanee nag waaye sëy du neex ba mu jeex donte dafa dañ ko war a jéem a neexal te tamit yàlla bu waxee ne dafa def jigéen ak góor ñuy peer dàll moom pour ñu mën a ànd fokk bi nekk gauche. bi nekk droite John Gray noonu na men are from Mars women from Venus te nu jigéen dañoo wuute ba mel ni ñaari planètes yu bokkut lañ lañ jógee léegi nag ñu war a dajee nag pour mot mot cest à la bu ñuy jàngee may jàng ci kii pour sama jikko baax muy jàng ci man pour jikkoom baax parce que naa dégg Serigne mu ne ñaari nit bu ñuy ànd ci sëy ba am ñaari at ku nekk war na remercier moromam ne ko maa ngi lay sant di la gërëm ndax li nga sopp ci man su fekkee ne du projet boobu laa am bi may sëy maanaa li ma neex ci moom rek mooy na mu mel wala li ma neex ci moom mooy la mu mën daanaka sëy ba du jëm kanam waaye na mu mel bonut waaye na mu mel bu fekkee ne taar la bu la attiré yi bu mu ca yem xam nga yonentu sallallahu alayhi wasallam wax na ne daañu wut jabar pour ay plusieurs raisons pour la mu am pour fa mu bokk pour na mu mel mu ne waaye bu la borom diine jël rëccee yàq na waaye exclure nit yeneen yi de ndax am na saxaabi bu ñëw ne ko damay labat bëgg a takk diw sàngam mu ne ko anadartaha ba xool nga mu ne ko déedéet mu ne ko danga ko xool am na ci beneen xadis mu ne ko lansaar am na lu nekk seen bëri danga ko xool moo tax kii takk soxna wax naa sànq ne am na luñ ko may luñ mayul ñeneen ñi mën na xool même bu dee da ngay sàcc xool ko sax te moo gën nga sàcc xool ko ba xam ne ndeke rafet na kat parce que takk ku rafetut ak yow baaxut de waaw ku rafetut ak yow xam nga li sëriñ bi wax léegi rafet nag si dafa dafa relatif quoi waaw léeg-léeg boo gis rek am na dipit ku nekk rek am na ku rafet ak na na rafet ak yow bu mu nekk nag rafetu eh, lu télévision bi di wax ne moo rafet parce que boobu am na ñoo xam ne tey tim ne social media moo leen moo xam ci seen sëy la moo xam ci sax li ñuy def c'est-à-dire l'opinion publique laa bëgg social media mën na ko mën na ko représenter moo leen conditionné di nga gis sax koo xam ne ñu ngi ci buumu sëy waaye conseil ya muy yoree këram wala ya muy nekk jëkkëram ci opera la koy jëlee wax naa nit ñi ne kuy sëy xaw ma koo war a déglu waaye waroo déglu wax la ndax sëy dafa nekk moo kasawu ko yem boo ko dundul mënoo caa wax te il faut l'expérimenter Oprah mosul sëy bu la waxee nooy sëyee du dem ah ki ngay def ci cooy bi xëy na mosul am jabar bu la waxee ni ngay sëyee du dem moo tax Lamartine ah, naka la tudd du Lamartine de keneen ka ah déedéet naka la tuddati naka la tuddati ah déedéet c'est un c'est un anglais Michael Hart Michael Hart ba mu jëlee yonantu sallallahu alayhi wa def ko ci tête de liste as the person the most influential in history te chrétien la dañ ne ko naka la yàlla nan ngay jëlee yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa as a Christian nga ko ci kaw Isa mu ne parce que dama gis yi Isa baax la yëpp Mouhamed fekk na ko ci bu dee ci yonent gi la bu dee ci wàllu wax ak moom dee ci bu dee ci bu dee ci waaye ma gis ci yonent bi yoo xam ne ñi ko mos a nekk yëpp moo ca gën te xaw ma bu ko Isa nekkoon nan la cay gën maanaam bu Isa amoon soxna xaw ma ban jëkkër lay doon te ñi am jëkkër yëpp yonent bi la ci gën Mouhamed a ci bu Isa amoon doom xaw ma ban baay lay doon. te ma gis ñi am bàyyi ñi am doom yëpp Mouhamad gën ci donc euh, Lamartine bi ma tudd sànq wax na ko nee na bu fekkee ne moyen yu tuuti ak euh, bëgg-bëgg bu rëy te jot ca ci diggante bi ci yonent bi jot mu ne bu fekkee yooyu la ñuy mesurer ku mat kan la mën a comparer ak Mouhamad c'est-à-dire li ci mooy ni mu tuutee ak ñi bët di rëy kaan te lépp mu mot mu ko ci durée bu tuuti boobu mu dund maanaam ku mel xaw ma xaw ma mënuma gis kan laa koy comparé c'est-à-dire que lii du ay jullit ñoo ko wax yonentu salaay salaam ne ndax xool nga ko ñu ne bëgg nañ nga nga xool ki nga bëgg aussi bien ci jigéen ji que ci góor gi eh, waaye bu leen fàtte ne ba léegi ay jàmbur ngeen parce que euh, définition wu labat mooy waadun bi ziwaaj waadun bi ziwaaj cest à ku nekk ci ñun ne bëgg naa takk ki ci des promesse boo xam ne du nécessaire yi dañ ko war a fulfill waaye it war sañu ñoo ko break te fekk amul reasonable reason wala acceptable reason islamically c'est-à-dire que yonentu dafa saa sam dafa ne man rëcc فليس منا وفي وفي روايه من غشنا فليس منا ku wor bokkoo ci ñun loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moo tax ñu bëgg balaa ngaa labat nga nga sàcc xool ba xam nan la mel balaa ngaa dugg ba pare di génnaat waaye jamono ji ñu toll moom daanaka sàcc amatut ndax ko photo yëpp a ngi fu nekk tabarkalla waaw mu nga ñëpp ay snap snap la la am na ku tudd sànq snap te bu mu la ah, Mouhamed Rasul mu ne bu mu snap ah moom anam la tudd snap snapchat mu ngoog moo tax lu mët a bàyyi xel la ah, borom xam-xam yi dañuy wax ne li nga sañ xool ci moom ñi dañu ne kanam gi ak loxo yi ak ndogu yi am ñu ne déedéet sañ nga gis baat bi am ñu ne sañ nga sax gis karoo imam ko fekk mu sol yi nga xam ne mooy yére liggéeyam. waaye loolu nag waxuñu du n'importe qui waaw loolu loolu yëpp loolu yëpp loolu yëpp lu mën a nekk la waaye bëgguñu ngeen wéet te fekk waa kër ga new fi maanaam li ñu bëgg mooy bu nit bëggee takk soxna ñu ñu famille bi ñu dimbalante ci waaye dem réere wéetaay beeg yooyu yëpp baaxut bu fekk surtout nag bu fekkee ne milieu la boo xam ne kenn amul ci yéen te yooyu da ngay am wante nga gis daanaka nit ñi takkatuñu soxna parce que bu fekkee ne nit ki li mu bëgg yëpp mi ngi koy am te te takkut bu ko yàlla joxul lëf ci ragal yàlla tuuti ngeen baal ma ci baat saalum sa may waxee noonu bu ko yàlla joxul dara ci ragal yàlla mën naa am du def dara su ko defee tamit buñ demee am na lo am solo eh, xam nga léeg-léeg ngay bëgg nit nga jël dara may ko su fekkee yow yaa dem ba bëggatoo bàyyi ñu ne sañuloo jël la la nga ko mayoon ndax yaa bàyyi waaye su la ki la bëgg su la soo ko jëndaloo iPhone wala nangam wala li mu lay jëndal yëpp pour bëgg laa takk bés boo bàyyee lislaam def ne da nga ko war a delloo yëpp loolu lay wax bi gën a wér su fekkoon ne can am na it can moom sëy tax bu joxe woon can moo xam moo bàyyi moo xam yaa bàyyi dañ koy delloo can bu dee mayee la nag nu mu la mayoon nag bu fekkee moom moo bàyyi kenn du ko ko delloo su fekkee yow yaa bàyyi yow jigéen ji parce que jigéen de léegi def bëri na li ñu koy def sax nag ñoom kenn baal ma waaye ñoom tuwaatkan la euh, bu ko defee bu demee nag ba war a takk am na yu nga xam ne mënta ñàkk ku takk gi am euh, suñu mbokk ahnaaf yi ijaab ak xabul rek lañ ko tuddee ijaab ak nag ijaab ak xabul mooy kii ñaan fokk mu njëkk a ñaan waaw maanaam ki ki waliyu bi maanaam kon kilifa bi fokk mu njëkk a mayee kii ñaan soog a nangu waaye jumhur dañ ne na ñaan ak nangu rek am ku njëkk a wax ak ku mujj a wax amu solo bu fekkee kii ñaan si moo ne may ma ñu ne ko may naa la donte baatu may ma ak may naa la kooku dañ caa wute parce que borom xam-xam yi dañ ne ne eh, baat yi ñu dëppoo ci bu ñuy takk sëy mooy baatu ziwaaj ak baatu nikaax ndax ñu ne ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci ci yàq ci yàqu alquran ak sunna dégg nga wala tantixu ma nakaxa abaaw kooku baatu baatu ziwaaj baatu nikaax yenoon fii wax na qad zawajtukaha qad zawajtukaha bima malakta bima malakta min alquran wala bima maaka min alquran ngeen baax waaye baatu boobu sax ngir am ku mel ni Maalik Yëti nangu nañ baatu tamlik nangu nañu baatu hiba ndax baatu zawajtukaha bi ñëw na ci waaye baatu malaktuha waaye nag baatu zawajtuha moo gën a wér ndax ñi ëpp ci ñi waaye moom lay solo baatu hiba yi ñu nañ waa kër Shaafi'i la dee war war yow baatu hiba waaye loolu ay question fekk la ñoo yaatee ci ndax dañuy tegtaloo ne wér na mooy in wahabat nafsaha linnabi in arada nabiyu an yastarkihaha xaalisatan laka min dunil muminina ñoom ñu ne déedéet loolu xaalisatan laka min dunil muminina ñee ne déedéet ñàkk can gi moo nekk xaalisatan laka waaye baatu hibatu bi nekk xaalisatan laka loolu question fiq la ñu jéggi ko beneen bi ci yi nga xam ne fokk mu am mooy kilifa ñuy tuddee gradient waa kër Abu Xanifa nag nee nañ jigéen su matee mu kalaf du charte ci sëy ba mu am kilifa waaye li ëpp ci borom xam-xam yi te looloo dëppoo texte yi mooy fokk mu am kilifa kilifa gi nag sañ tam forcé maye waaye war naa yëg moo war a maye jigéen warta maye boppam ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na bépp jigéen boo xam ne maye na boppam fa nikaaxuha baatil sëyam caaxaan la neen la yonentu wax na loolu waaye wax na ne jigéen moo gën a yey ci boppam maanaam bu demee ba d'accord sëy ci la kilifa di méngoo maye ga waaye kilifa it sañta maye dëgg la nag ci suñu mësa mi am na lu ñuy wax kilifa bu mën a forcer waaye bu ñu delloo ci texte danañ gis ne yonentu sallallahu alayhi wasallam am na ku baayam maye mu ñëw boole ko yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ko ba la neexee nga dindi ko kooka ne ko wéyal naa waaye dama bëgg jigéen ñi xam ne seen kilifa yi sañ leen a maye te d'accord nañ ci kilifa bëgg nag sañ naa wakiil imam mu maye sañ naa wakiil keneen maye nag yomb na yombut c'est-à-dire limaan bi moom a maye wala nangam du farata kii farata mooy kii ñaan si wala ki mu yónni ak kii maye wala ki mu yónni kii ñaan kii maye te maa seede bu amul xutba sax baax na xutba ga nag sopp nañ ko bi ci des mooy na am ñu ko fekkee muy ñaari seede te nekk ñaari seede yu màndu laa nikaaxa illa bi waliyin wa shahiday adlin am na ci borom xam-xam bi nag ñoom ne eh, na na na nekk ñaari seede rek màndu gi rek ko ca sopp waaye yonentu dafa tudd màndu gi moom Eh, loolu charte la ci wala bonk la ci imam Malik ne ci takk gi moom dañ koo sopp waaye balaa ñoo xaraf war naa may seede fokk mu am ñu seede ne sëy am na balaa ñoo mën a balaa ñoo mën a eh, seq dara beneen bi ci ñi nga xam ne moo tax mooy mooy mooy ci la sëy di amee mooy ñaar ñi ko war a seq am na ay melo yu sama borom tabaraka wa taala wax ci ñoom bu ngeen jàngee suratu nisa ñoom ñetti sama borom tudd ne kenn mënu leen a takk xurimat aleykum ummahatukum ndey yi wa banatukum doom yi wa axawatukum mbokk yi lu ca wa axawatukum wa ammatukum bàjjen wa xaalaatukum tante yi wa banaatu laxi sa doom yi mbokk wa banaatu luxti sa doom yi mbokk mu wa ummahatukum allaati ardaanakum seen yaayi njaabal yi xam nga yaayi njaabal mooy ku la nàmpal te juru la waa axawaatukum min ar-radaa ngeen bokkal ween nàmp te doonte bokk leen ku leen jur wa ummahaatu nisaa'ikum sa borom waaw jigéen soo ko xasee takk rek mënatoo takk yaayam wa rabaa'ibukum allaati fi hujuurikum min nisaa'ikum allaati daxaltum bihinna waaye nag jigéen soo ko takkee tànk sëyu leen mën ngaa takk doomam fi ngeen tàqali ko su ngeen xasee seq dara nag doom ja min nisaa'ikum daxaltum bihinna fa in lam takunu daxaltum bihinna fala junaaha alaykum wa halaa'ilu abnaa'ikum alladina min aslaabikum seeni goro mu sa doom takk mënatoo ko takk wa an tajmau bayna luxtayni ñii ñu njëkk a tudd xaraam gi dafa dëppet maanaam dafa ñoo ne xaraam bu éternel la duñ la mos a dagal mooy ñii ñu tudd ak ñoo xam ne xaraam nañ la gaa mais xaraam bu temporaire la bokk na ca sa jigéenu jigéen wala sa sëru jabar mënoo boole ñaari sër waaye bu kii yàlla bu am mën nañ laa may mbokkam waaye mënoo leen a boole yonent yi sallallahu alayhi wa yokk na ci wala wax nañu ndax lu mu wax waxyu la sa mënoo boole jigéen ak tantam mënoo boole jigéen ak bàjjanam ak tamit wal muhsanaatu min an-nisaa jigéen nekk ci buum kooku kenn mënu ko takk moo xam mu nekk ci buum xaqiqatan wala mu nekk ci buum xukman mu nekk ci buum xaqiqatan mooy koo xam nekk ci buum ci atte mooy koo xam ne fase nañ ko waaye it fasem te ay daan jeexagut kooku it mi ci sëy ndax kooku bu jëkkëram deewoon daf koy doon moom bu deewoon jëkkëram daf koy doon looloo tax sax ki nga fase fase moomu yàlla ne la bu ko bàyyi mu génn ñun nag balaa fase am sax nit ñi jël bagage am yàlla doon daf ne bu leen bu leen leen génnee min jiyooti hin illa an yaxruj bu leen leen génnee lu dul nag ñoom ñu génnal seen bopp waaye yàlla dafa bëgg ndax la alla allahu yuhdisu ba'da zalika amran bi ustaz Abdou Samad wax sànq ci gannaaw passé lay am ñaareel waaw alquran ci siyaqa boobu la ko la boobu la ko indi bu ko defee ñi nga xam ne yi mënoo leen a takk yow jullit bu góor bi mooy koo xam ne yéeféer la amul diine ci benn ci diine asamaan yi muy nasraaniyatu wala yahudiyatu su ko amee it borom xam-xam ñu ne ah yàlla wal muhsanaatu la wax de ya ca téye seen bopp la wax de ndax njaalookat dafa xaram ku ko takk te fekk loo njaalookat boo dee njaalookat ni moom nag mën nga ko takk lu njaalu bala musal yàlla ko de njaalookat dañoo jigéen goo xam dañ koo xam ci taxawaalu sañoo ko takk loolu alquran la wax azaniyatu laa yankixuha illa zani yàlla ko waxee azani laa yankixu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu laa yankixuha illa zani aw mushrik yow tamit jigéen bi buñ ne la kii playboy la lu mu bëri bëri alal loo ko bëgg-bëgg sañoo te see moom isam loolu la waxee njaalokat daal njaalokat la daan war a àndal loolu doonte nag borom xam-xam am nañ ci détail looloo ca benn weer ndax yàqu alquran ku tuub kay man taaba taaba allahu alayhi attaa'ibu mina zanbi kaman laa zanba lahu ku tuub moom mu ngi mel ni mosaam bàkkaar li bi ci des mooy jullit bi sayta takk jigéen bu am diine bu jigéen ba amee diine yi fokk mu nekk kitaabiyatu wala mu nekk maanaam kitaabiyat imma yahudiyatan aw nasraniyatan voilà ndax sama borom dafa tere woon ci baqara góor ñi ak jigéen ñi ñu see yéebéer ci sootul baqara ñoom ñëpp la ko tere woon waaye ayaat yi nga xam ne nag ñooy ayaat yi mujj wàcc ci alquran ci la wax ne bu dee yéeféer ba jigéen yéeféer bu jigéen ba am na diine muy diine kitaabi yetu catholique chrétien la waaye mu tuddee mu tudd nasaraaniya xaw ma sax ndax mën nañoo wax chrétien wala mën nañoo catholique ndax ñaari yu waaye daal nasaraaniyeetu mën naa ko tudd wala yahudiyeetu yàlla moom ne moo wal muhsanaatu min alladina utul kitaaba bu ko defee kon góor mën naa takk jabar joo xam ne ci benn ci diine yooyu la nekk waaye jigéen nag ma nga ca fam ne woon mënta sëy koo xam ne nekkul ci lislaam xam nga lu tax it's very fair man am I'm with you woman so inshallah you will be happy te l'islam du wax mukk mukk mukk loo xam ne oppression amut wa wa ma bi zallaamin lil abid yàlla du mu ne ko ko xaraamal ci boppam ba pare soo ko xaraamal ci ñun kon nag falaata wax na moom alors jigéen bi lu jullit mën a takk jigéenu bi chrétien wala jigéenu juif ndax góoru jullit moom gannaaw mooy rek xiwaamatul bayt moom moo jiite kër gi waaye gëm na Isa gëm na Moussa te sañu la tere chrétien bi mu takk wala juif bi mu takk sañu ko tere mu dem église sañul ko tere mu jaamu li mu gëm ci kër gi sañ tey wax lu bon ci Moussa sañ tey wax lu bon ci Isa ndax fi mu teg yonent yàlla Muhammad da leen teg laa min rusulihi kon kooku ku ne ci suufam du ko tooy waaye jullit bi na moom mu ngi jëm ci kër goo xam ne borom gëmut yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom respecté wul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa borom bëggul ñu def dara lu jëm ci diine lislaam kooku benn la ci xikmatu yi tax jigéenu jullit du sëyëg góor bu dut jullit waaye wal aksu gayru saxiix du noonu ñu ne it bu ñuy sëy nañ nekk nawle nawle nag ci sama borom bokkul ak nawle ci wolof nawle <clears throat> bu dee Ibnu Hazm moom Zahiri la nee na ab kàccoor sax mën naa nekk nawle bu dul njaalookat waaye loolu wérut li wér mooy nawle mooy borom diine ni ko Imaam Malik waxee borom diine ak boroom jikko yonentu mu ne fadfar bi daati diini taribal ya dàkk wax na it ne su leen dikkalee yéen kilifaay jigéen ji man tardaw na diinahu wa xuluqahu kon diine ak jikko ñoom ci la ñuy nawle waaye yeneen yi du nattuwaay c'est-à-dire wolof moom ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuutal ndax ne dañoo am métier sàngam ak nàngam